allama al insaana maa lam yaalam arrahmaanu allama al qur'aana xalaqa al insaana allamahu al bayaan wasalaatu wasalaamu ala man qaala innama bucistu mualliman sayidina muhammad ibni abdillahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman wa radiya allahu an saaxibi alxatmiya walkatmiya مولانا أبي العباس القائل إذا سمعتم عني شيئا فزنوه بميزان شرعه فما وافق فخذوه وما خالف فاتركوه سيدي مولاي سيدي أحمد التجان وعن وارث سرهما القائل وقد فقت في العرفان من كان يعرف وأيضا من قال أحيي العلوم كذا أحيي المعارف laa mayla li shathi wa daawa wala alkadibi bi zahiri lcharci wa nuuril mubini urabi salikina bila kaddin wala reebi saydi mawla alxaaji ibrahima ibnu alxaaji abdullahi atijaani mbokk yi ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi salaai salaam gërëm cheikh tijaani gërëm cheikh ibrahima tey ñu ngi fii tey ci ñolaaneem ci kër cheikh maam alxaaji ibnu cheikh mahamadul muntaqa ibnu cheikh ibrahima yemook samdi ñaar fukki fan ak ñett ci janvier ci atam deux mille vingt et toogaay bi nag li ko waral mooy ibbi daara fii ci ñolaaneem daara ji ki ko ki koy ibbi mooy cheikh maam alxaaji ibnu cheikh mouhamadul muntaxa ibnu cheikh ibrahim ci ndigalal cheikh mouhamadul aaxibu ibnu cheikh ibrahim mu nekk daara joo xam ne nag alquran lañ fi jàng ak xam-xam ñi ngi ñaan yàlla loolu yàlla na ko yàlla nangu mu nekk liggéey boo xam ne nag Cheikh Mamadou Alhaaji moo koy taxawee ak ñi ko yàlla booleel nga xam ne bëgg nañ xam-xam bëgg nañ yooni Cheikh Ibrahim bëgg nañ yooni pay bi bëgg nañ yooni lislaam ñu jàppalante ci ak moom ndax moom xam na ne lamam yi waxoon ba muy jàngale di jàngale ba yaram wi tàng mu lem jukki bi jug taxaw ci kaw ne kër gi ku fi falu rek jukki bi moo la fal te jukki boobu du dara lu mooy alquran du dara lu mooy xaddis moo tax ñu jàng loolu ñoom tey seen damay wax ne képp ku def lu mel nii li kii def rek dañuy wax ne laa xarwa li ñuy jaaxal ci ñoom mooy ku ci ibbi woon atelier tailleur wala atelier menuisier wala atelier mécanicien waaye ñoom jàng ak jàngale bay dundee liggéey rek lañ xam kon daara ji tey mi ngi koy ibbi ci ndigalal sëriñam cheikh Mouhamadul Aaxibu ibnu cheikh Ibrahim pour jàng ak jàngale alquran ak xam-xam ak ya ca aju yëpp ñi ngi fii nag ci kanamam ak sang yu tedd yi Cheikh Ahmad Tidiane Thiam mi ngi nii toog di muxaddam yi Serigne Darou Ousmane Ndiaye Cheikh Malick nga nee toog di xaritam di soppeem yaa ngi dégg oustaz Mouhamed Cheikh ngi ne toog moom itam ak euh, Seydil Kabir alim yu bari sëñ bi xëy na dana leen tudd Cheikh Mor Sall nga ne le loolu daal moo ñu fi tax a teew sëriñ bi ñu ngi koy ñaanal yàlla daar ji niñ fi toogee ibbi ko ci ndigal sëriñ bi yàlla nañ fi toog tijji eh, déglu fi ay kàng yu baree bare bari bi jaay rasulullah sallallahu alayhi wasallam ñu ngi ànd ak itam suñu xarit Abdou Diagne ko ba tuuba loolu moo ñu fi tax a toog ñu ngi ñaan ñu tàmbalee ko ci bismillahi rahmaani rahim àggali ko ak alhamdulilah allahuma ñu jox Cheikh Ahmad Tidiane Thiam moom itam mu sànni ci kàddu buñ paree ñu jox sëriñ bi alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala mawlana rasulillah seydina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala mbokk yi ñu ngi sant yàlla julli ci yonent muhammad te ñaanal suñu sëriñ maolana cheikh Tidiane di ñaanal suñu sëriñ bi nga xam ne mooy maolana cheikh al islam alaaji ibrahima Niass nga xam ne lii ci ay ngëneelam la bokk ñu ngi sant yàlla bu baax di ndokkel sëriñ bi di ko nuyu di ziyaaram mboolem sang yi fi teew ma labal leen ci turam di bi kulli maanaam ziyaara lépp lu ziyaara ràmboo rek ñu ngi koy ziyaara sëriñ bi di ñaan yàlla lii ñu tàmbali fi yàlla na ko yàlla matal bi jaay sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam am na yaakaar bu baax ndax li sëriñ bu ubbee rek wax ko te bàyyi wax na ne li gën a foor ci lim am mooy téere bi li gën a foor ba muy ñaan téere bi la ñaan mokkal ko nekk karamam fal tajaalan xirsa kitaabikal karim karamati ila liqaayikal azim wax teg ca ne cofeelam ak mbëggeelam ci téere bi mooy waxtu ko wàccee rek yëgaat ko kon ci loolu turaas boobu ci la sëriñ bi nekk ñu ngi koy ñaanal yàlla yal na yàlla guddal ko yal na ko yàlla yàggal bi jaay seydina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam comme ni ko sëriñ bi waxee rek lii rek mooy euh, ndono ci kër maam alaaji abdoulaye tax nit ñi yëpp sàkk ndaw pour jubli ci ci maam alaaji pour leerlu téere bii nga xam ne moom lañu yàlla bind mbindeef yëpp jagleel ko jullit ñi ñu di ko jàng di ko tek tekkil nit ñi mu am ci cër bu lew ci alxuraan moom ci barke maamam ci at yu limu ci at ndaw mu di ko firi di ko tafsiral ni ñi amu ci muy dox ci lépp lu tax téere boobu ñëw pour jox def ko ci joomi jullit ñi moo waral mu ubbi bés bii nga xam ne ala kulli bu amee lu muy tegtale rek dafay tegtale ne jaar na ca tànk ya bàyyi nekkoon ak maam ya ñu ngi ñaan yàlla sëriñ bi loolu yal na ko yàlla taxaw yal na yàlla dëgëral la ak képp ku jog pour dimbale si la ci loolu yal yàlla nekk sa dimbal ci li feeñ nekk sa dimbal ci li li nëbbu képp ku fi jàng yal na nga xam yal na bu fi kenn des ku fi ñëw yal na nga jàng te yal na nga ñibbi te yóbbaale xam-xam bi jaay Seydina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziyaara wa salaamaaleykum bismillah alhamdulillah wa ma bikum min ni'matin fa min allah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa asxaabihi wa man wala wa baan ñu ngi nuyu képp kenn ci yéen ci turam ak ci jëmmam nuyu bi ñu ngi ciy jiital sëriñ bi cheikh mam xaaj muntaqa cheikh Moussa ñu ngi lay nuyu bu baax macha allah kàddu yi jot na rafet na ñu ngi am contentement bu baax ci jotaay tey bi nga xam ne dara waralu ko lu dut alquran xam ne bàyyi ñes lépp lu ko yàlla jox mi ngi ko joxee ci barkeb alquran li ko sëriñ bi waxee léegi moom la ñaanoo yàlla mu nekk karaamam xam ne am na benn naaru gànnaar boo xam ne kullu waliyin xassahu bi karaamati wa karaamatu ibrahima ala wa amjadu karaama mawlana cheikh ibrahima nag moom mooy lii te bi ñu ngi koy suivre bu baax ay mbiram lépp mooy lu yëkkati diine ji la lu yëkkati tariixa la yëkkati faydu te araab yi nee nañ ma faala min ajlillaahi qubila wa ma faala li ajli naasi raddun nit ki lépp loo xam ne nga koy jëf ngir jëmmi yàlla ji jëf ju yàlla daf koy nangu amuñ sëkk ne jëf ju yàlla daf koy nangu ñu ngi oo soppe yëpp nga xam ne Baay waxoon na ne ahibati fal tursilul wildaana kay yaqarahu waqtasib al quran ñu ngi oo mboolem koo xam ne mi ngi ñuy di dégg kàddu yi daara ji dara taxu koo jóg lenn la ci daaray moom Hadj Abdoulahi lenn la ci daaray Mawlana Cheikh Ibrahim képp koo xam na sa doom bëgg naa jàng sëriñ bu ubbil na la buntu ci daara ji ñu ngi koy ñaanal yàlla yal na yàlla dëgëral ko te sàmm ko yal na yàlla aar ko yal na yàlla ko fa yàq àggul barke yonent bi sallallahu alayhi wa barke Cheikh Tidiane Chérif Adela barke wa ma zalika ala llahi bi aziz asalaamu aleykum wa rahmatullah alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi alladi bi nicmatihi wasalaatu wasalaamu ala ashrafil anbiyaai wal mursalin saydina muhammad ibni abdillah saydil awalina wal axirin wa ala alihi wa ashaabihi wa man wala yaa himmata cheikh uxdari lana bi hada almaxdari waltaatifi bi nadratin taati lana bi zafari alhamdulilah ñi ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di gërëm suñ sëriñ mawlaana cheikh al islam xaaj ibrahima ñas maa ngi nuyu suñ xalifa cheikh Mouhamadul Mahi cheikh Ibrahim Niass di ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla guddal fanam may ko wér di nuyu imaamul akbar cheikh Ahmed Tidiane Seydi Aline Cissé di nuyu naatiqul rasmi cheikh Mouhamadul Mahi Aline Cissé di nuyu cheikh Mouhamadul Lamine di nuyu sama sëriñ Seydi Mawlaaya cheikh Mouhamadul Aqib di nuyu mboolem xadara bi yëpp. ak mboolem muxaddam waaye ñu ngi nuyu mboolem julliti àddina fuñ man di nekk ñëpp ñu ngi leen nuyu di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu waaye di nuyu soppe yi nga xam ne ñoom laa toog ak ci barab bu tedd bi ndax bari bi alxuraan la te bari bi alxuraan dara gënu koo tedd ci addina di nuyu suma xarit suma soppe suma àndandoor al muxaddamul baraka Seydi Moulaay Cheikh Moussa waaye di nuyu almuxadamul barka Cheikh Ahmed Tidiane Thiam di nuyu suma xarit suma àndandoor suma mag Cheikh Malick Niass di nuyu oustaz Mouhamed Seck di xaadimul Qur'an moom itam di nuyu Cheikh Hassan Niass di nuyu Cheikh Ahmadou di nuyu Cheikh Abdou Dia mu jógee ba Touba Abdou Diagne ci bés bi fekk li si ñi di nuyu Cheikh Ahmadou Thiam di nuyu mboolem. ñi nga xam ne teew nañ ci jotaay bi Cheikh Omar Niass ñëpp ñu ngi leen di nuyu di nuyu Cheikh Mouhamed Sall di nuyu abu Aboubacar Thiam di nuyu ñëpp di sant yàlla bu baax nag ci daje bi nga xam ne daje nañ te dara taxul ñi daje lu du ubbi daaraay alxuraan ci ndigalal suñ sëriñ Cheikh Mouhamadul Aqib sheikh Ibrahima Niass nga xam ne lépp lu ñuy def rek ci ndigalam lañ ko defee bañ ñëwee ci barab bi moo ñu jox ndigal ne nañ fi def daaray alxuraan moom nag ndigalam te sufiyaan ki ñoo wax ne assirru yasri maal izni mbóot mi ngi dox ànd ak ndigal ndigal loolu nag ci lañ taxaw ba góorgóorlu ci lii pour xale yi mën cee jàng alhamdulilahi rabbil alamin biñ ko tàmbalee ci ndigalam rek biñ ko tàmbalee ci ndigalam rek yàlla dimbale nañi rek amagum nañ fukki xale yoo xam ne ñoom ñëpp dañoo ñëw pour dal si alquran te tàmbaliment rek nga am fukk xale loolu dëgg-dëgg loolu sant yàlla la di ñaan yàlla yàlla ko yàlla mottili ci jàmm defuñ ko nag lu dul roy suñ sëriñ Mawlana Cheikh al Islam Hadj Ibrahima Niass defuñ ko lu roy suñ bàyyi suñ waajur yi loolu rek moo tax ñi taxawal lu mel nii pour def ko di ñaan yàlla nag mu yokk ci barke yonent bi sallallaahu liñ ci bëgg yëpp yàlla nañ ci yàlla defal yaa rabbi jaay rasulillah daara ji nag tey macha allah yàlla dimbale nañu tamit am na ñaari sëriñ daara yoo xam ne ñoom ñëpp ay jàngalekati alxuraan lañ jàng nañ alxuraan ba mokkal ko ku ci jiitu mooy Mouhamadul Mansour Ndiaye ak euh, Cheikh Baara ñoom ñëpp jàng nañ alxuraan mokkal nañ ko jàngal nañ ay nit bañ tere alxuraan yàlla def nag bi ñuy tàmbali lii rek ñoom ñëw nañ pour ànd ak ñun ci loolu ñoo yore daara ji pour taxaw mboolem xale yi ñu ngi ñaan yàlla yàlla nañu yàlla dimbale dafal ñu tawfiix bi rasulillahi sallallahu alayhi kon ubbi nañ ko tey li Cheikh Mouhamed Seck wax léegi comme li Baye waxoon quarante sept ne yéen soppe yi na ngeen yónnee seen doom pour ñu ñëw jàng si alxuraan ñu ngi koy wax it mbooleem soppe yëpp ñu ngi koy wax ne nañ indi seen xale yi ñu jàng alxuraan ndax alxuraan dënn bu mu njëkk rek yàqute du ci topp mukk ci àddina ndax alxuraan mooy mooy mooy fondement yi lépp mooy fondement yi lépp mooy mbóoti àddina bi moo taxal ya moo tax yàlla teg àddina bi ndax alxuraan bu bu alxuraan jugee fii rek rek àddina bi tukki yonent bi sallallahu alayhi wa wax ne ne yàlla bu naree tukkal àddina dafay jël mboolem ñi nga xam ne ñoom ñoom mokkal alxuraan ñu baax ñëpp mu jël leen yóbbu leen bu leen yóbbee bañ jeex takk nag mu soogoo tukkal àddina bi waaye buy àddina bi du tukki israfil di wal bëftu bi ñëpp di dee du fi fekk kenn ku baax du fi fekk kenn ku mokkal alxuraan kon alxuraan feeg mi ngi fi rek lépp mi ngi ci mi ngi ci àddina te yàlla wax na yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko alxuraan ji mooy sa teraanga mooy sa teraanga xeet innahu la dikrun laka wa li xawmika wa sawfa tusaluun alxuraan ji mooy sa mooy sa teraanga yow yonent bi waaye mooy teraanga sa mboolem xeet bi kon nag te feeg ñi ngi koy jàng yàlla mi ngi wattu àddina bi feeg ñi ngi jàng alxuraan baay mi ne asamaan si taw suuf di saxal gàncax doom yi di bu ñu demee nag ba bàyyi jàng alxuraan rek àddina bi tukki kon nag nañ fexe xale yi jàng alxuraan ak xam alxuraan ñu ngi ñaan yàlla yàlla ñu yàlla defal tawfee bi jaay rasulillahi sallallahu alayhi wa lii cheikh Moussa Soxna wa cheikh Mouhamed Seck wax ko cheikh Ahmed Tidiane loolu matane loolu la ñuy tëjee di ñaan yàlla rek yàlla nañu yàlla dimbale bi jaay rasulillahi sallallahu alayhi demee nag. loolu incha allah buñ ñëwee ba gisanteeg sëñ daara yi rek ñoom dañ leen ko wax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim allah alhamdulilahi rabbil alamin agsi nañ kon ci miskul xitaam ñi ñi ngi sant yàlla bu baax kon mbokk yi yéen ko déggandoor liggéey baa ngi noonu daara ji tàmbali na amaat nañ beneen waar ci tool wi ci liggéeyal yonent bi liggéeyal maam alaaji abdullahi liggéeyal cheikhu tijaani liggéeyal waaye itam suñ bunt muy cheikh abdul aaxibu te it boobu ki nga xam ne moo ñu jiite ci liggéey boobu mooy cheikh maam alxaaji ibnu cheikh mahamadul muntaxa kon sëriñ bi ñu ngi lay ñaanal yàlla yow itam ci sa itte ndax lii itte la himma la góorgóorlu la yaa ngi teg sa tànk fi nga war a teg sa tànk yaa ngi teg sa tànk fi bàyyi ak maam yi tegoon tànk muy jàng ak jàngale ak yar nit ñi ak bay liggéey dundee sa ñaq yal na yàlla dimbale la wattu la sàmm la <clears throat> ba lépp loo tàmbali nga gis ci barke gis ci résultat allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sahbihi wa sallam ñi ngi gërëm ñëpp ñi ngi sant ñëpp macha allah رسول إله العالمين تعالى قديمك نادى يا رسول تعالى رسول إله العالمين تعالى قديمك نادى يا رسول تعالى قديمك نادى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 allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim